يزكو Brasilia امتد من جلال أنت المؤاد إذا نهى تشرع كوف الجود ستر أبيرا لخوت كوف الجود ستر أبيرا شيخ تيجان فلم تودع ستر أبيرا loxo ci këmpalam tëdde Qur'an remede tikkum tëmi ila samarati dini tëmi acca jóg leen ñu màggal jóg leen taxa màggal mais ko retour bi mooy yeex acca jóg leen ñu màggal assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yi fi daje yëpp ngeen ma fay xam noonu di laa ko ñu ngi nuyu mbokk yi fi daje yëpp di leen ziyaara di leen bal xaq di leen bal xaq di leen ndokkeel bu tedd bii di ñaan yàlla yal na ngeen ko yàgg taxawal at yu bare bare bare bari te bu ñëw dàq moroom xam naa ngeen fàttali ñu ku ñu war a jaar ci turam ak santam ci suñu làmmiñ la ca des nag ñu aj ko ca xol ba ñu ngi jiital ci nuyoo bi suñu bàyyi tedd bii di bàyyi alxaaji abdullahi ba di magum jataay bi di ko ziyaara di ko jox cëram di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram xadara Seydi Xaaji Maalik kenn du ci retraité moo waral muy nugg su nugg si ba heure bii ku ne xam na ni âge mayeetu ko mu toog ba heure bii waaye pas-pasam xadara bi ak xam ni xadara bi kenn du ci retraité wa'bud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin moo ko jàpp kon bàyyi ñu lay nuyu di la ziyaar jox sa cër di nuyu ki nga xam ni tey mooy xalifa suñu maam bi tedd ja alxaaji Ahmed Lamine Diène bi nga xam ni tey moo waral bis bi kii di xalifaam di alxaaji Jibi Diène xaaj bi ñu leen ñu di la ziyaara di la jox sa kër di nuyu Seydil Hadji Malick Cissé bi nga xam ni tey moo fi teewal sunu baay sunu xalifa di sunu baay Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy yàlla yàlla guddal fanam may ko wér Seydi Hadji Malick ñu ngi lay bu baax di la ziyaara di jaarale nuyoo bi ci yow nga tegal ñu ko ci loxo suñu bàyyi bu tedd boobu ku ci war a teg di nuyu Serigne Babacar Kébé di ko ziyaara di ko jox cëram sëriñ Adama Fall nga xam ni ku leen xam gis leen gis nga suñu bàyyi tedd ba sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine ci gàttal daal ñu ngi nuyu képp ku fi teew loolu gën a gaaw voilà xam nga wolof dafay am lu muy wax di ko yàq wolof danaan ku juum wax bu yàqu la wolof ñu bare bari ba daf koy wax waaye daf koy yàq wolof nee na ku juum déedéet ku lim doo juum danga dul matal am na koo war tuddoo ko xëy na fàtte nga ko boo duggee ci rek mën na am nga am koo fàtte kon ku lim danga dul doo juum mais danga dul mëtale te yaakaar naa ni ñi fi teew ñépp di góor di jigéen di mag di ndaw lii ma bëgg a wax dinañ ma ko nangul làmmiñ wii may tudde nit ñi te mënumaa tudd ñépp ndax kon damay lim te sama bàyyi daan la faral di wax naan am sa ñépp lim li dafay nuru cat mu di ko nirale góor ga ak doomu ja góor ga dafa romb ca ca giir ga am ku nekk ca biir te gisu ko di rat waaye na muy rattee ku dégg rattin wa xam ni kii ratt am na doole waaye góor gi gisul kay rat góor gi romb daal nii ay ana kuy xubbi ci giir gi ndax wax mu rëy ana kuy xubbi ci giir gi doom jane ca biir wax mu xàmmee baat ba ni ko mën a day bàyyi mu ni ko ah yaa fuy kiis xoolal fu mu jëlee xubbi la waxoon waaye dafa bañ cat ci doomam mu wëlbati wax ba changé baat ba ci ci xubbi ni yaa ah, ah yaa fuy kiis dafa bañoon cat doom ja kon nag am sa ñëpp lim leen cat la waaye kon li may bëgg a wax di ngeen ma ko nangul mooy lan làmmiñ bii ma tuddee bii may waxee man yi dafa tax tànn yi tooy yi ma ni làmmiñ dafa tax tàlli tooy yi lu la tax tàlli tooy nag loo ca teg dafay baras ci ku wadd kon amul njëriñ alxuraan ba mu daj soo dégg fu yàlla waxee ni ku wax ma fay la kon waxatul ak làmmiñ am na beneen cër bu muy waxal muy xol kon nag léegi maan yi ci gàmmu gi tey man Mame Malick ubbi naa boyet boobu nga xam ni loo ca def du sànq te am na caabi yéen ñëpp ma dugal leen ci ba ma leen ci dugalee tëj ko jël caabi ji sànni ko gannaaw géej est-ce que ngeen génn jeex na kon ku làmmiñ bi tuddul xol bi tuddul la kon xanaa meratu leen ku ma tuddul xanaa meratoo jeex na ñëw nañu si nag ci ndigalu sunu baay sunu sëriñ sunu xarit sunu wëllëre sëriñ Abdul Aziz Sy Al waaye yéen ñu tudd seen sëriñ fittasu leen fittasu leen waaye sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine doy mag ñi doy ndaw ñi waaw doy mag ñi doy ndaw ñi mu jeex tàkk doy mag ñi doy ndaw ñi doy na sëriñ Babacar si dund ak moom mu nekk ci wetam ba mu gërëm ko mu dem alxaaji Abdul Aziz ñëw nekk ci wetam mu nekk ci wetam alxaaji Abdul di dem gërëm ko Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour ñëw mu ne ci wetam jàppale ko ba mu gërëm ko bëccëgu dara kàmm tey suñu baay bii fi nekk ku dégg bër ci démb ci ziar général sa xol war naa sedd <laughs> waaw kon nag moom moom moo yónni xam naa lu toll nii moom mu daan teew daaw mu ni ma maam demal ren mu ni ma maam demal man nag maa dugg soxla ndax moom fu mu daan teew mu ni ma demal ah xanaa ay làkki daadaa rek kon laa fi wax ndax moom kenn mënu ko remplacer kenn mënu ko wuutu waaye nag ñu jéemantu rek xam naa guddi na nag ndax comme ni ko sëñ bi waxee léegi temps dafa cher xanaa ñu kii rek niiral niiral guddi gi rek niiral guddi gi rek niiral rek lay doon nag niiral xam nga bis tey bii ku ñu ni yaa ko moom ku dul Seydina Muhammad nax nañ la waxal ku moom bis bi ku moom bis bi laa waxal nga leen ko waaw moom moom bis bi moom Seydina Muhammad siècle am la at yépp atam la weer yépp weeram la semaine yépp semaine am la bis yépp bisam la heure yépp heure am la minute yépp minute am la seconde yépp seconde am la tiers yépp tiersam la lépp moom kon bu ñu doon dagg suñu yàpp di ko jox sax fayuñu ko xam na léegi wax naa si ñu wolof dafay wax wax boo xam ne dafay wax di ko yàq wolof nee na balaa nga ni naam ne fa du loolu la wolof wax bu yàqu la balaa nga ni naam ne fa wax bu yàqu la am na koo xam ne nee na naam te newu fa tudd léegi muy Seydina Muhammad nee na naam te newu fa <coughs> laaj leen ma ci fan waaw loolu daf ci baax na laaj leen ma ci fan waaw kay lamma ixtarafa aadamu alxatiata qaala ya rabbi asaluka bi xaqi muhammadin lama xafarta lii qaala wa kayfa arafta muhammadan qaala lamma xalaqtani bi yadika ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقلت إنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك كوك نينا نام تنيوفا ها xadis bi xaakim ak bayhaqi ak ibnu kathir ñoo ko solo te ñu ñëpp ay xiffaat lañu te ku ne xam ni xaw ko ku ku ku def mustalahul xadis di nga xam ni alxaafid huwa man xafida miata alf xadis matnan wa sanadan alxaafid huwa man xafida miata alf xadis matnan wa sanadan xaakim xaafid la bayhaqi xaafid la ibnu kathir xaafid la ay xufaat lañu te alxaafid huwa man xafida miata alf xadis matnan wa sanadan xaafid mooy koo xam ni mokkal na ah téeméeri junni xadis mokkal matni bi mokkal sanad bi sanad mooy góor ña ña ko diw diwa ko nett li diw diwa ko nett li ko nett li nga nga mokkal tur ya ba muy ñett ba muy téeméeri junni nga mokkal itam yax ba loolu jafe na de kooku may xaafid man xafida mi alf xadis matnan wa sanadan ñetti ñi kenn ku nekk xaakim bay xaqi ak ak euh, ibnu kasir kenn ku ci nekk nit ñi solo xadis nee na bi bi yàlla bi aadama defee la mu def te mooy bi ko yàlla nee ajjanaangoo garab yi fi nekk yëpp lekkal waaye bii bàyyi ko fi mu lekk garab ga iblis iblis jax-jaxal ko ba mu lekk garab ga ba mu bëggee yàlla jéggal ko dafa ni yaa rabbi yow sama borom asaluka maa ngi lay ñaan bi xaqi muhammadin ci barke muhammad taxawal kañ la woon est-ce que boobu muhammad judd na wax na bi xaqi muhammadin ci barke muhammad lamaa xafarta lii nga jéggal ma moom tudd na tur muhammad te muhammad maamaatam sax juddoogul boobu waaw moo tax kuy wax naan wéeruwaay wala yóbbu fa nga jëm amul nax nga sa bopp xoolal fii la cosaanoo aadama dégg leen wax bu baax yaa rabbi yow sama borom asaluka maa ngi lay ñaan bi xaqi muhammad yi ci barke muhammad la maa lii nga jéggal ma lii ma def xaala yàlla ni ko wa kayfa arafta muhammad rek noo xamee muhammad bii ngay tudd turam qaala aadama li yàlla lamma xalaqtani bi yadika ba nga ma bindee sa loxo yu tedd ya waxin la ci sa kàttan wa nafaxta fiya min ruuxika nga nga wal ci man ruux ba nga xam ni lu ma xool lu ma xool xam couleur ba lu ma noyyi xam xet ga lu ma mos xam cafka la lu ma dégg xam son lu ma làmb daj ko fu ma neex dem waaw ruuxa tax waaye bu doon jëm rek soxlawuñ ko fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi jëmm amul njëriñ ndax bu doon loolu kese aadama ba ko yàlla bindee aadama taxawaayam ak yaatuwaayam ñoo tolloo 60 mètres taxawaay 60 mètres yaatuwaay ndax bu dee kii yëpp ponkal 60 mètres taxawaay 60 mètres yaatuwaay depuis booba nag nit ñi di gën a di wàññeeku nag di gàtt di gën a gàtt di gën a gàtt di gën a gàtt di gën a tuuti di gën a gàtt ba léegi ki ki sut ci àdduna mëtul 3 mètres yaakaar naa ni ah waaye léegi xool Adama 60 ñaar yëpp kay taxawaay ñoo tolloo nee na ba nga ma bindee man yow yàlla ba nga ma bindee ba pare wëlbatiku sol ci man rouge rafaatul asii damaa yëkkati sama bopp fa raaytu ala qawaimil arsh ma xool fu ma xool ci arsh buntu yéeg mur yéeg fu ma xool rek maktuuban nga bind fa loo fa bind yàlla laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah nga def sa tur ci kaw def def def beneen tur ci suuf te mooy muhammad man loolu laa gis fa qultu ma wax ni innaka yow yàlla lam tudif doo dendale ah ilasmika ci sa tur illa ahabal xalq ilayka lu dul ki nga xam ni moom nga gën a bëgg ci say ci say jaam sa tur doo ko dendale ak ku dul ki nga gën a bëgg sa tur mooy bind nga laa ilaha illallah ci suufam nga def muhammad rasulullah ma xam ni kon ah, kii nga def ci nga dendale sa tur moom nga gën a bëgg ci say jaam kon moo waral ba ma gisee loola ma ni kon ma bëgg nga nga baal ma ma wëlbatiku def tawassul ci moom sukkandiku ci barkeem pour nga baal ma tam wóolu ma ni kon di ma baal ci barkeem yàlla ni ko am nga chance bu dul woon ak Muhammad moom nga wax du ma la jéggal te itam du ma la bind moo tax Seydi Hadji Malick sëriñu sëriñ si borom parasol bu njëkk ba borom Tiwaawan wax te mu ni yëbali waykat yi bu leen way bihi taabal ilaahu ala abina bihi zunnuuni zaayala batna nuuni bihi bishrun wa ihyaun li isa bihi qaala alali ya naaru kuuni bihi yaqubu murtaddun basiran bihi luutun yunajja min quruni bihi haada zabihu fidaa dabhin bihi zuljubbi yanju min shatuni bihi zulfulki ghiida almaau anhu bihi muusa yunajja min shatuni bihi zulfulki ghiida almaau anhu bihi muusa yunajja min shatuni bihi zulmulki mullika ma tamanna bihi nilna fa nashkura kulla diini da in yatnaaba qul kullul baraaya uniilu maa uniilu bil mubiini id ijaadu wal imdaadu minhu nabiyun isnatun amul usuli kooku sama maam sama turandoo moo ko wax sama maam sama turandoo loolu ci mën wax naa ko fi daaw de man ni man sama papa li ma defal bari na waaye lim ma defal tam te mu gën maa neex mooy lim ma tuddee maamam Seydil Hadji Malick Seydil Hadji Malick taaba jéggal na al ilahu yàlla abina ci suñu maam aadama bihi ci barke Muhammad dégg ngeen dégg ngeen wax bi bihi taaba ilahu ala abina taaba jéggal na al ilaahu yàlla ala abina ci suñu maam aadama bihi ci barke muhammad mu ni zunnuuni boroom jën wa te yunus zaayale génn na bat nuuni biir jën bihi ci barke muhammad فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعرق وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون mu ni dun nuuni borom jën wa zaaye la génn na bat na nuuni biir jën wa di ci barke Muhammad ñun ki ñu am xamuñu ko am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam koo ki ñu am du kenn moom mu ni bis ñu wa ixyaaw ak dundal li isa ñeel isa bihi amee na ci barke muhammad wa mubashiran bi rasulin yati min baadi ismuhu ahmad qaala wax na al ali yàlla yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima bihi ci muhammad bardan wa xam nga yàlla bu ñu woon bardan yem ca kon ibrahima day congelé waaw yàlla bu ñu woon bardan wa xam nga ibrahima dañoo dañoo taal ab sib ay fan ngir sànni ko ca mënuñu koo jege pour sànni ko ca ba dañoo jël manjonnière pro luy luy luy sànni projectile la teg def ko ci sànni ko ba mu duggee rek yàlla ni yàlla ni yàlla ni euh, sawara yi dangaa nekkoon sawara bu tàng wëlbatikul transformé wu nekk sedd waaye nag sedd ba bu mu rey xam nga ni sedd bu ëppee rey sedd bu ëppee rey tàngoor itam bu ëppee rey moo tax àjjanaa neex àjjana yàlla ñu fi yàlla yóbbu waaye nag ca kanama kanama kanama kanama kanama ndax ndegam ndegam laa yaraw na fiiha shamsan wala zamharira yàlla nee na àjjana climat ba dafa dafa dafa doomu tàng boobu bay rey sedd boobu amana seet seet bi pour jinne yi la xamuloo ñu Maodo bu ñu la laajee nii ni la jinne xam nga comme dina dem sawara lan mooy mbugal ci sawara neen sedd maa la ko wax jinne sedd mooy jinne sedd mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mbugalam ndax ci sawara lañ ko bind sawara nan lay jeexatale ci sawara waxal hmm? wala qad xalaqna al insana min salsaalin min xamain masnuunin wal jaanna xalaqnaahu min qablu min naari samuum kon moom ci sawara bu xonq coono lañ ko bind waaw sawara mu ngi jeexal rek sawara kon àjjana kon sawara normalement ñaari climat moo fa war a am tàng lool pour mun a mën a jeexital ci doomu aadama yi ak sedd lool pour mën a jeexital ci yi kon kon la contraire bu àjjana moo moo la ca contraire moo war a nekk sawara àjjana climat ba dafa digg dóomu tànn ba ëpp bay rey seddu ba bay rey kon nag sawara itam ah contraire àjjana moo fa war a nekk mooy wa am na partie bu tàng lool pour doomu aadama yi waaye itam am na partie bu sedd lool pour njinne yi ndax malaaka la yasullaha ma amadu mooy fa alama mun a mala euh, kenn tegu ko dara kon doomu aadama ak jinne fi nekk foog ñu dem sawara wala ñu dem àjjana ña ca àjjana lii ña ca sawara lii mu ni yaaquubu yaaquub murtaddun aji dellu la gannaaw ba mu gumbaa jooy doomam ja ba gumba basiiran di aji gis bihi ci barke muhammad mu ni luutun luut yu najjaa mu sëleef na ko min quruuni ca maas ka mooy góor jigéen yu wa luutan id qaala li qawmihi atatuuna alfaxishata maa sabaqakum biha min ahadin al aalamina mu ni kon luutun luut yu najjaa musaleef na ko min quruuni ca ca maas ga te mooy góor jigéen ga bii ci barke Muhammad lépp ci barke Muhammad mu ni xaaja làq na ak dabixu ku ñu bëggoon kaa rendi lan la làq fii daa a dabxin njot kuuy kuuy wa fadaynaahu bi dabxin azimin ay bi kabshin alladi xarrabahu haadihi kuy kuy ma Haabil jaamu woon yàlla te yàlla nangu jaamu ga ñu jële ko ci suuf yóbbu ko kuy moomu moom la ñu delloo si jote ko Ismaayil mu ni xaaja laq na ak dabixu bu ñu bëggoon kaa reen gi lan te mooy lan la laq fii la ak dabxi njot kuuy dixi ci barke Muhammad borom pax ma wala borom teen ba yet joo mucc na min chatuuni ca pax mu xóot ma min chatuuni ca pax mu xóot ma di ci barke Muhammad te mooy Yuusufa Muusa Muusa yu najjaa musalleef na ko min shahuni ñu bari dañuy yàq naan shuhun mais min shahuni la siixatu mubaalaxa la ca noonaa kon ba te mooy firawna min shahuni ca noonaa kon ba min shahuni faawul lañ ko tëgg min ca Muhammad dul mulki borom nguur ga te mooy Suleymaan mulli ko mayeef na ko maa taman naa la mu bëggoon bii ci barke Muhammad kon nag kon nag nit naa la amee fanashkura ba ñu sant lan la ñu am kulla diini bépp tedd nga <laughs> kulla diini bépp tedd nga nit bii ci barke Muhammad nit naa lañu ñu amee fan la shukura a ñu sant lan la ñu am kulla diini bépp tedd nga daa bàyyi addit naa ba xaabaabal ga pour nga pour nga tënk wax bi daal xul waxal ni kullul baraaya mbindeef yëpp uniiloo mayees na leen maa lépp loo xam ni uniiloo mayeef na leen ko bil mu bii ni ci barke muhammad sallallahu alayhi wa sallam it ngir ak yi jaadu amal ga wala im daadu ak tëbb ga mi ngi tukkee ci moo amal yàlla moo amal waaye muhammad moo tëbb wax na ma man yàlla moo amal waaye muhammad moo tëbb alhamdulillahi lil ijaadi wal xidami mumidinaa bi wujuudi lbadri dil xalami ثم الصلاة وتسليم يفوق على مسك ورد على ذي الفضل والقلم وآله المهتدين الخيرة الكرماء المؤتمي سيرة المختار والقدم ما أشعر الرعد والغرقاء تنشم من هديها وجرى دمع من القلم وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نورا نبي العالمين إن العوالم عاليها وسافلها أشعب طلع من أفضل النسب وأعلم الله هادينا نبوته وكان آدم بين النفس والنسب عيون الأرواح من نور الهدى انبجست فإنه الجنس لعلى معدن السم وخلق الأخلاق بعث الأنبياء لظهوره مقدمة فاعلم ولا تلمي في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم sama maam sama turandoo nee alhamdu mboolem xaritat yi ñeent lillaahi ay sax la ñeel yàlla yàlla man dil ijaadi yàlla may boroom amal dil ijaadi yàlla may boroom amal xool si ay maa dafa tëb rek dal ci amal pour wane yi ku amul doo amale ku amul nooy amale kon yàlla am gi mu am dafa war ci moom ndax bu amul woon du mën a amal yajibu lillahi wujudu wal qidam kadal baqaau wal ginal mutlaq wa am wa xulfuhu xalqihi bila misaal wa waxdatu daami wasfin wal fiaal wa qudratun iradatun ilmun xayaat sam'un kalaamun basarun di waajibaat yàlla dafa war a am yàlla dafa war a jëkk bu fi lépp jógee yàlla fee war a des dafa war a am lu doy ba am xam ni foo ah, am na fa am am ba war ko wuti ca keneen dafa war a wuteeg mbindéef yi jëmmam ji dafa war a wéet meloom wa dafa war a wéet jëfam ji dafa war a wéet dafa war a am kàttan dafa war a namm dafa war a xam dafa war a dund dafa war a dégg dafa war a gis dafa war a wax yii dafa war a ci yàlla moo tax si aj may alhamdu mboolem xajtat yi ñeenti lillaahi aji sax la ñeel yàlla yàlla man vil ijaadi yàlla may borom amal wat idam ak jëkk mu mit dinaa kadi ay tëpp sunu li mu juujil badri ci sama bopp amul weeroo tamit mu xam sama sam jël xale bi kay borom jiitu yàlla moo jëkk Muhammad moo jiitu yàlla mooy xidam Muhammad mooy xadam yàlla moo jëkk Muhammad moo jiitu mu ne ba ci biir mu ni wa innahu naka lu mbir tey dëgg a araada ba nammee allahu yàlla nashatanaa sosnu abaana la feeñale nooral na bi leeru yonent bi ana ana ñi kay doj min nuuri yi mu jëlee ko leeram mu ni innal awaalima naka aalal yi aaliha way kawe seen wa saafilaha ak way suufe seen ñoom ñëpp day ashiatun ay ceeñeer lañu talaat yooyu fenk lañu min afdali nasabi tukkee ci ngën mu ni wa alama xamal na allahu yàlla haadina aji diri sunu nubuwatahu nubuwaam fekk boobu wakaana nekkoon na aadamu aadama bayna nafsi diggante bind jëmm wan nasabi ak solduwul mu ni uyoonu larwaax yi waaye seen yuux yëpp il bajasat ball nañu min nuuril hudaa tukkee ci tukkee ci leeru njub ga fa innahu naka moom Muhammad al jins mooy xeet wa al ala wala ay kawe maa li suñu mooy mbay li ñu saaya mu ni waxal ko lax laaf yi bind gi yàlla bind mbindeef yi baaxul ambiya ak yónni gi mu yónni yonent yi muqaddimatun laltaay la muqaddimatun ak yëg la muqaddimatun lu ñuy jiital la li zuhurihi ñee feeñ Muhammad fii aalami mulki ci àdduna bii mu ni wal arwaaxu ruux yëpp taabiatun way topp nañ li ruuxi ngir ruux Muhammad wal ajsaamu yaram yëpp taabiatun way topp lañ lil jismi ñeel ñeel yaram Muhammad mu ni dëgg dëgg dëgg dëgg daal haada lii xaayatul karam mooy doy teraanga doy na teraanga lii ku ko yàlla defal doy teraanga xam nga Mouhamad Mouhamad sallallahu alayhi xam sallam gis nga looloo waral salaatul faatihi garaaw salaatul faatihi ku koy foyee dof nga salaatul faatihi dafa am ñaari baat yi nekk yoo xam ni bay na salaatu ñaar te yépp ci Muhammad la dellu bu njëkk bi mooy alfaatix lima uxliqa ban heure la ñuy euh, suba ñaata ñaata nit moo kon baax na lima uxliqa mooy bu njëkk ba wal xaatimi lima sabaq <laughs> xoolal xoolal xoolal li mu wax dafa wax dafa am ñaari bayit yoo xam ni ci la tënk ñaari yi dafa wax ni wa miftaaxun wa misbaaxun muniiru jawaadun mustafaa aynul uyuuni muy alfaatix li maa uxliqa mu ni waat ci beneen bayit huwa alxatmu alimaamu wal ibtidaai makaanatuhu almakaanatu duuna duuni xamuloo ni Muhammad du buntu yàlla Maodo Muhammad du buntu yàlla laaj ma la mu yàlla la caat boobu tey sa bunt tëjoo ko amul séeréer amul caabi la nga dégg ca magasin ba du ñoom kon bu ñuy wax ni Muhammad mooy buntu yàlla bu dul woon ak tubéy julli ñaaw déedéet bu dul woon ak géño géño julli ñaaw loolu ñu war a wax waaye tubéy tubéy ju am tubéy bu amul géeñoo kay moom ak la yam wala sax penda la ko tane kon yàlla ba mu jëlee la mu soxla def ko ci magasin bi def buntu dafa jël serrure def ca jël caabi tëj jël caabi yi jox Muhammad ku bëgg a dugg jaar ci moom. parce que ajmaa ngi nii parce que ajmaa ngi nii wa miftaaxun caabi la moom Muhammad mooy caabi yàlla wa misbaaxun làmp la muniirun bu di aji leeral jawaadun aji tabe la moom Muhammad Moustapha ku ñu tànn la aynul uyuuni mooy sangi sangi ya alfaatihi maa ulay mu ni waat huwa moom Muhammad alxatmu moo tëj càllaleeg yeneen yi antal xaatimu nuut mi waxal antal xaatimu nuut mi alxatmu moo tëj moo moo mottali yeneen yi al imaam mooy njiit la wa iqtidaay borom ku roy bii ci Muhammad kooku di makaanatu daraja al makaanatu mooy daraja ja doona dooni duuna duuni boo xam ne féete na kaw daraja yépp duuna duuni kon ñun ñëpp ñu tàll suñuy loxo yéen suñu bëgg-bëgg yëpp yal na yàlla faj aajo ku fi teew yal nañ ko teewee di ngeen di déwén te déwén daa xaar ngeen dox ñu sax bismillah allahumma amin allahumma amin رمضان يا رب العالمين آمين raay leen amiin docteur li yàlla tudd nga xaafiru yaa sataaru yaa tawaabu zal joodi wal karami yaa يخفى عليك الحال مني لا ولا قوي قويني على الطاعات عن كسل والأجر والداعات والالتجاء إليك يا ملجانا والالتجاء الفضل يا من السرور أن تحكمك النفس لا تعملا إسرا علينا ربنا كما حملته الذين قبلنا خسن لنا يا ربنا بالفضل ولا تواقسن لنا بالعدل خسن لنا يا ربنا بالفضل ولا تواقسن لنا بالعدل أحسن عواقب الأمور خالقي لنا أجرنا ربنا يا رازق تجاهك الكريم قد سنيت بركبتي مثلا وجهت منية حاسى العبد أن تميت على طريق سيقي أدخلت لا سما ما لا سما أتانا لا min rabbi maanaa la hoo nawaala ñu ni sëriñ Babacar ki ngay wax mooy kan mu ni mooy mu mi di kulli awliyaa abil abbasi ahmad tijaani laa